juge moo fi génnee décision nit taxaw jox a jàkkaarloog moom ñeneen ñi def vidéo ne ko yow fii nga far am na ñoo xam ne yàq nañ ko bu dugg ci vie privée dara dawlu leen si dara fekku leen si alors que Diomaye daa am lu mu bind ñu toppee ko pour outrage à magistrat Serigne Saliou Gueye publication d'une contribution de moins de 3000 caractères dans son journal ñu toppee ko outrage à magistrat ak yeneen mhm. da ngay gis foofu tey ji ni déséquilibre bi am et ça est au nom d' une certaine impunité te wax naa ko yàgg naa ko wax gis nga président Macky Sall ba mu waree sukki sukki xam nga sukki ah déplumer ces faucons pour ñu bañ a atteindre l' espace aérien du palais dafa yàgg mhm. te parce que président boo jël dafa am ay faucons yoo xam ne ñoo lay wër duñ la may nga noyyi duñ la bàyyi nga xippi ba pare yow bu fekkee doo dem ak lucidité nag da ngay wéy di dëkk ci erreur ba na bu ñu demee ba benn jamono ak li xew Sénégal ak coow li am Sénégal ak li ñuy dund ci Sénégal ñu pour la première fois ngay toog ñu naan la y a plus de mille détenus dans ce pays là et pour la majorité ce sont des jeunes. Mhm. ñu waxuma la nag ñiy commettre waxuma ñiy commettre des actes délictuels encore une fois. Mhm. président waxuma ñi commettre des actes délictuels dañoo fekk ñuy dérober yëfu yëfu xadi colonel ci manifestation dañoo fekk ñuy. toj yëfu président si manifestation de manière volontaire je parle pas de ces gens-là mm-hmm. mais ceux-là qui expriment loo xam ne c'est consacré dans la constitution ñu teg leen loxo participation à une manifestation non autorisée yóbbu tëj alors que d'autres ont improvisé ici des des manifestations imagine-toi ba ñu wàccee Aliou Sall des jeunes apéristes dañoo envahir le palais même mm-hmm. bu fekkee ni ñenn ñi sax après juge ñu leen condamné mais en réalité euh, fanaan la suñ koy xool alors que d'autres aujourd'hui xoolal Pape Abdoulaye Touré situation bi ñu ko fekk ak nañ ko dooree woon ak la ñu tuur ci yaramam xamoo ndax huile la xamoo ndax diwlin xamoo lu mu doon. Mhm. il s'est retrouvé avec des des fractures. nga jël ko yóbbee ko noonu prison alors qu'il pouvait. et souvent seen liberté provisoire. nit di def grève de la faim. ñu naan situation bi la toll nekkul situation be ay ni toog ne dara dalu ko day tappale ab nit responsable responsable politique nekkoon si Abdoulaye Wade transhumé si président Macky Sall. Mhm. def benn post Facebook def benn xale xale bu ndaw bu am cinq ans bu xiif bu nekkoon xam naa photo yi nekkoon Biafra yooyu la génne bu xiif lemu ab vautour nekk si wetam ab tan nekk si wetam il a eu l'outrecuidance de publier une telle photo. dans sa sur sa page Facebook ba pare naan ñi ngi xaar cinquantième jour xaw ma quarantième jour pour xool ndaxam dëgg la lan la fay undu ndaxam bu ñu yeggee si bés boobee nit ki ñuy wax ni dafa dugg ci li dina dee. Mhm. c'est cela la vérité c'est cela la vérité donc aujourd'hui bu ñu nee nit yooyee ñu si bari ci ay ndaw génne nañ leen libéré nañ leen comme le président l'a dit comme Bamba l'a dit mais nous encourageons les autorités. persévérer dans cette dynamique-là. Aller dans le sens de libérer autant qu'ils peuvent. Autant qu'ils peuvent, autant pour moi, les autorités, autant qu'ils peuvent, autant de jeunes yoo xam ne dañ jàpp si yenn yenn si yenn situation yi si yenn conditions yi parce que tey nit doof def na erreur ses premières publications je l'avais dit sur ce plateau là mais il s'est amendé weesuwul nga génne jéggalu parce que on sait que par moment man sama war bopp je peux ne pas contrôler mes émotions nga supprimer vidéo mhm. taxul nga jàpp ko yóbbu ko prison ba tëj ko pourquoi parce que quelque part c'est comme si nous étions dans une opération de démantèlement de tout ce qui est militant et sympathisant mais également dans une opération d'affaiblissement de l'opposition de manière générale quand je parle de l'opposition c'est la l'opposition bu ñuy jàpp ni c'est l'opposition la plus représentative ou la plus radicalisée comment faire pour que naka laay tasee Mimi Touré day dem waaye du am doole Abdourahmane dina dem waaye du am doole mhm. Boubacar Camara dina dem waaye du am doole Bougane Gueye dina dem waaye du am doole Malick Gakou dina dem waaye du am doole ce n'est pas cela le jeu le véritable jeu mooy que ni comme nuñ ko mësee defee si jamono ji Senghor ak président Lamine Guèye wax ma bii de <laughs> bii fu falsi bi la yaa ngi ak ak Lamine Guèye di def lu tour mhm. kii nekk dans les villages ki nekk dans les zones urbaines ni dem Sénégalais yi tànnal seen bopp ñu demaat tànnalaat seen bopp ba ñuy yegg à l'ouverture démocratique à partir des élections générales de 1983 Sénégalais yi tànnaat seen bopp même bu fekkoon ne les règles en matière électorale topp ci woon mais au moins on a toujours su voter donc loolu wañ na lu war a xam que soit alpha et quel que soit le nombre de pièges que tu mettras tu risques demain de tomber dans un de tes pièges et justement Abdoulaye en, en parlant de piège tey euh, suñu waxee prisonnier politique Sénégal forcément on va penser à Ousmane Sonko libération yi ñu commencé euh, déjà gis nañu euh, y a deux trois jours ci ginnaaw Karim di génn di wax ci waxu négociation bu Ousmane Sonko nekk di def ndax ci ci libération bi mënuñ am jàngat également qu'on veut faire croire que Ousmane Sonko mu ngi nekk di dealer ak le président Macky le vrai deal c'est qu'il n'y a pas de deal. c'est-à-dire. le vrai deal c'est maanaam cest la ñu naan instant yii nii nit ki mi ngi dile c'est-à-dire que nit ki moo dilewul parce que tamit si liggéey bi ngay def di nga dem taataan xibaar. Mhm. di nga dem au-delà des personnes ressources yu ngay jàkkaar lool nga dem dans la fond pour set yeneen personne yoo xam ne fësuñu feeñuñu te amaana mun nga jukki si ñoom information. Mhm. mais bi nga wëree ba wër nga dajale information yépp da nga koy teg sur la balance. information bi bi bi bi yi nga xam ne dañu ne dialogue amu ca te nit ki fi mu taxaw la taxaw am na si bu ñuy wax waxu ci àndu ci yaa ngi dégg façon bi ñu naan dañuy créer condition pour ñu def am na si général baal ñëpp àndu ci yaa ngi dégg mhm. bokkuma si lii ngeen di jëfee yéen a def seen pexe dugal ma prison yéen ay def seen pexe génnewaat ma prison yaa ngi dégg mhm. donc loolu kese moo fi nekk ba jamono ji ñuy wax léegi nag nit bu xasee ba teg tànk ba dem ba toog ak nit ki alakuli àll la say fës mooy ña ngay dialoguer mais dialogue bi le dialogue c'est entre un émetteur et un récepteur mais quand l'émetteur wax yëkkati kàddu def proposition le récepteur ne la nga wax yow émetteur bi man jëluma ànduma ca bëgguma ca donc foofu munoo wax dil encore une fois munoo wax dil lu mu wax rek moo di encore une fois li gën ci réew mi xam nañ ko la ca jiitu mooy lu ma doon wax la dernière fois on met en avant la communication du pourrissement mm-hmm. la communication du pourrissement mooy da ngay génne xibaar ñu yaatal ko à travers des canaux de diffusion de l'information mu tabbi si doomu ba si nopp doomu aadama yi ba nga xam ne ñi koy jël dafay bari suba bu ñu andee solution bi mooy la libération lay jiitu mooy ah ok kon lañ doon wax sa njëlbeen lii la jur en réalité c'est ce qu'on Mhm. c'est le colon recherché mais man je dis pas qu'il ne faut pas dialoguer non du tout mais c'est-à-dire dialoguer en donnant la bonne information dafa baax président mais ne pas verser dans une forme de manipulation mhm. parce que bu ñu nee amnistie générale ba pare nga ne ça concerne ceux-là kon ce sont ceux ils acceptent que kon lépp li nga xam ni si loi d'amnistie bi la ñu fa dëxëñ yen vous êtes les coupables mhm. vous êtes les coupables kon bu ñu crime politique Sénégal kon yéen ñi ñi ne yéen a tax ñu def amnistie générale c'est vous qui êtes les coupables alors que jusqu'au moment où nous parlons il n'y a pas eu de coupable parce que ñoom ñëpp ils n'ont pas encore été entendus dans le fond du dossier benn taxawaguñu procès jugé wuñu leen condamné wuñu leen kon boog même bu fekkee loi d'amnistie dafay éteindre toute toute toute euh, poursuite boo dafa soxal li nga wax APR ñi ànd nañ si ñi ànduñu si Benno ñi ànd nañ si ñi ànduñu si force vive yi ñi bëgg nañu ñi bëgguñu mais une loi d'amnistie pour amnistie quoi quel fait et quel fait concerne euh, euh, euh, quelle autorité politique mm-hmm. yaa ngi dégg opposition wala pouvoir la mars 2021 tous ces morts et cetera et cetera amnistie fa ñu koy dugal bu fekkee ne yow da nga nangu ni on amnistie te yow amnistie bi yow yaa tax pour ñu war la mën a génne donc tu acceptes que tu es le coupable. par rapport justement à des manifestations au contenu aux orientations politiques mhm. donc loolu moo si nekk moo tax yi moi je toujours gis nga autorité autorité la gëdd bi nga koy jox dafay mat sëkk lu dëkk institution institution la gëdd bi nga koy jox dafay mat sëkk waaye nag boo dee da ngay bëgg génne nit ki il a la personne a toutes les garanties de représentation ñoom ñëpp sénégalais lañu fii la dëkk xam nañu seen kër xam ñu seen i soxna xam nañu seen i doom fii la ñu tabax fii la ñuy liggéey ay fonctionnaires lañ ñu si bari si ñoom mais bu ay la ñu woon boo leen génnee xaar ba ba ba yegg si càppaa ndaw ga mais au moins ñu jugé ñu xam kan moo kan moo si responsable mhm. kan moo si def lii kan moo si deful lii mais depuis mars 2021 yow mii di taskatu xibaar dégg goo ñu ne enquête bi toll na fii parce que ubbi nañu enquête ba tey jii yow li nga xam si xibaar mooy enquête amut c'est vrai enquête dégguñu ko fenn mhm. on aurait pu mener des enquêtes situer les responsabilité prendre des coupables juger des coupables et condamner des coupables loolu moo loolu moo jiitu mhm. mais loolu yëpp amu ci on a eu une cinquantaine de morts il y a eu des des des morts liés à des dégâts collatéraux il y a des Sénégalais qui gardent des séquelles à vie c'est vrai amuñu bët ñàkk nañ ko mhm. dagg nañ seen loxo ñenn ñi am na ñoo xam ne ay prothèses lañu sol parce que tànk ya dagg nañ ko mhm. tout ça après dañuy yeew rek ñu France on éponge mu ngoog président.